et on se retrouve euh, pour la suite euh, a jot ñu ngi leen di leen le ngi arrêté 10h après am nañu supplément une heure de temps loolu mooy yeewu leen plus alors avant d'aller danser avec nos invités on ni ñu ko defee lundi ak mercredi bu jot Ndiaye digital lañ ci àndal. Mamadou Ndiaye ñu lay nuyu dañu koy njëkkee ak euh, résultat Ligue des champions euh, ak programme mu tey bi mais d'abord résultat yi démb. dañuy njëkkee résultat yi Pape Cheikh comme ni ñu ko waxee démb bel kii di FC Barcelone gagné na bel 2 buts à 0. Mhm. Arsenal daal di dóor Bayern Munich 2 euh, buts à 0 Dynamo Kiev Chelsea 0 but partout Valence ak Gent 2 buts à 2 buts à 1 pour Valence. Zénith Lyon Porto Tel Aviv 2 buts à 0 pour Porto Dynamo Dynamo Zagreb. ak Olympique euh, Olympiakos 1 but à 0 pour Olympiakos Leverkusen Arsenal euh, AS Rome 4 partout. Pape dañuy dem directement tey ci programme mu tey bi kii di euh, Atlético Madrid mooy daje ak FC. Asatana euh, CSK Moscou Manchester United Galatasaray Benfica Juventus Mönchengladbach euh, Malmo Schalke ak euh, Manchester City Séville Euh, Paris Saint-Germain match bi nga xam ne ñoom ñëpp moom la xaar Pape muy Paris Saint-Germain ak euh, Real de Madrid. Ah Wolfsburg PSV Eindhoven. voilà c'est un match qui aura lieu ca Parc des Princes bu Paris tout le monde attend ça parce que euh, Zlatan Ibrahimovic ak keneen ki. Ronaldo bu ñu dajee dina mel ni dégg tey. <laughs> bilaay toujours quand ah, tout le monde attend ça même les gens qui font pas du foot. ils attendent ce match tey. Pape sax <laughs> Ibrahimovic xaritam la. <laughs> mu ngi noonu toujours moo tax tey moom lay waajal moom. voilà donc match bi ce sera à partir tey dañu bëgg a waxtaan euh, ci euh, Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc euh, de Dakar. mi nga xamante ni club bi nga xam ñu ngi ko créé depuis 1921. ah oui depuis 1921 et puis seen mhm. euh, c'est-à-dire même bu fekkee euh, doo amateur u football xam nga JA dégg nga ko alors après le problème qu'on a pourquoi ak ni mu tolloon. Mhm. dem ba jamono dox ba léegi nii. Mhm. mu am daanaka dellu ginnaaw la ñu koy tuddee quatrième division. loolu defe naa du lu neex Sénégalais yëpp parce que Jeanne d'Arc dafa demoon ba nekk daanaka équipe nationale dix fois championne du Sénégal.

Cheikh ma dolli ci sax ne di Dour Sarr Dour Sarr nga xamante ni moom ci boppam jaar na euh, Jeanne d'Arc. Mhm. madame moom nekk tamit ku ñu xam ci basket. Ah fii ci Sénégal ah oui que je voulais dire dama bëggoon nga wax ma tuuti d'abord ci madame euh, ci madame Sakho. madame Sakho moom nga xamante ni vraiment ancienne basketteuse la woon. fii ci équipe nationale capitaine moom tamit gagné na fi ay trophées yu bare ah bare ah moom tamit nekk koo xamante ni ku yëngatu bu baax ci waa GIA la mhm. moo tax tey ñu ñu ñu recevoir leen fii ci plateau Yeewu Leen ñu ngi leen di nuyu Doudou Sarr madame Sakho. ñu sant di leen euh, vraiment gërëm ci invitation mm-hmm. li ñuy wax rek mooy première question bi mooy ñaata GIA moo am ci yéen ñaata GIA actuellement yi crise bi bi mu jotee ba léegi ñaata GIA moo am. waaw benn GIA kon mën nañu jàpp ni benn GIA moo am mais eh, dañoo gis ni te GIA temps yëpp bien vrai que GIA mi ngi quatrième division léegi mi ngi def remobilisation du troupe par exemple woole boole boolewaat ñëpp euh, ñu bokk ndey bokk baay yëkkatiwaat club bi lan moo loolu moo fi nekkoon seen tànk tey. tey day ñëw pour euh, vraiment lancer un appel d'abord parce que c'est une commission qui est en train de. d'organiser cette assemblée générale parce que commission bi dañu woote woon benn appel bi mu desee six matchs l'année dernière toutes les bonnes volontés se sont manifestées ñu créé commission bi c'est pas une commission fermée dañu woo tous les fils de la JA qui veulent aider la vieille dame c'est que voilà comment cette commission est née on a travaillé sur les six derniers matchs on a mis l'équipe dans des conditions de performance vraiment comme il faut et ils nous ont demandé de continuer pour vraiment faire une assemblée générale apaisée mhm. et avec les, tous les fils de la GIA. Mhm. waaw assemblée générale apaisée loolu lu lu baax la ci club bu mel ne GIA mais Pape li ma bëgg wax mooy GIA est-ce que xam nga ni 2008 GIA mi ngi am tolloon ci 1 euh, milliard 392 mille francs CFA. 1 milliard loo xamante ni club africain mën naa ne club africain bariwul ci club yi ko am. 2008. Mhm. 2012 JA wàcc deuxième division 2013 2014 deuxième euh, troisième division actuellement 2015 ñu ngi quatrième division lan problème mu du du ma ñëwaat ci problème mu ay li fi amoon ci ginnaaw ba affaire boobu mi ngi mi ngi justice ak euh, président Mamadou Ndiaye euh, lan moo lan ngeen gën a mën a yaakaar ni boo leen ko defee JA dina ñëwaat ci élite sénégalaise. un milliard trois cent quatre-vingt-douze yi nga wax bëgg naa ko corriger. oui parce que danga mel ni ko wax ne budget gendarme la woon. et un milliard trois cent quatre-vingt-douze c'était suite à la vente. Mhm. du terrain. Ah. mais on veut oublier tout ça. d'accord, d'accord. on veut travailler avec le présent parce que loolu moo ñu ñor tey. Mhm, mhm, suñu naanee ne dañu bëgg a defar gendarme c'est parce que gëm nañu ne gendarme mën nañ ko delloo fi mu jugee. mais bëgg naa leen corriger tuuti parce que yaakaar naa ni yéen soo leen di wax Jeanne d'Arc football la ngeen di wax te sànq souligné ngeen ne man basket laa jugee j'ai bien été la première capitaine de l'équipe nationale du Sénégal qui a remporté la première Coupe d'Afrique pour le Sénégal en 1974 74 je suis partie pendant 30 ans oh. je suis revenue mais la Jeanne d'Arc c'est ma famille c'est ma maison et dama ko bëgg a jàppale pour que mu dellu fi mu jugee woon donc léegi comme ni ko mon frère Doudou waxee léegi sunu xeex mooy rassembler la famille. rassembler tous les Giaman tous les fils de la Jeanne d'Arc pour que ñu nekk benn. loolu moo tax bi ñu déggee annonce ci euh, président Masson Diop. qui voulait donc créer cette commission spéciale. nous sommes venus naan ne dañ koy jàppale. parce que xam nañu ne mën nañu delloo Jeanne d'Arc fi mu jugee woon. Ah donc loolu mooy suñu doxe ni tey. Mm-hmm. donc oote ñëpp ñëw parce que prévoir nañu assemblée générale. Mm-hmm. au départ on avait fixé la date du 31 octobre. Mm-hmm. malheureusement pour des raisons involontaires. Hein, euh, nous avons nous sommes obligés de reporter l'assemblée pour le 7 Pour le 7 novembre. Le 7 novembre. D'accord, mhm. d'accord. Au collège Sacré-Cœur. D'accord. Dans la grande salle du collège Sacré-Cœur. donc la vente des aussi qui donc euh, prévue pour euh, être close mm -hmm. le 3 novembre. ñaata la carte de membre yi di jar. carte bi mu ngi jar 10 000 francs. voilà et je vais vous expliquer pourquoi 10 000 francs. Mhm. parce que xam naa ne am na ñoo xam ne d' accord ñu si 10 000 francs. loolu loolu sax ci laa bëggoon ñëw. voilà nga xamante ni ku ci mel ne Mbaye Ngom. xam naa d' accordul ci ci 10 000 yooyu parce que nee na pour boole ñu waat nit ñi. Mhm. mieux vaut bi. Mhm. ñëpp ñëw jàpp ci waa GIA. parce que 10 000 francs nee a amuñu accès ci kenn ñëpp amuñu 10 000 francs. mais nee na moom xalaatam ah. pour mu gën a pour mu gën mën a boole nit ñi il faut ngeen wàññi prix yi ñëpp ñëw ñu defaraat GIA. d'accord d'accord naa ak li ngay wax mais problème yi Jeanne lan la yoo xam nga wax nga sànq affaire yi 1 milliard ma corrigé la. Mhm. problème yi Jeanne d'Arc tey du problème xaalis la. su ñu jaayee carte 500 francs wala 1000 francs wala 2000 francs mhm. est-ce que dinañ mën a jàppale suñu discipline yi nga xam ne. Mhm. ñooñu. ñoom ñooy Jeanne que comme ni nga ko waxee sànq Jeanne d'Arc du football kese. du football kese discipline yëpp la ci euh, football tey wàcc na yàlla xam na ne. li ñu waroon def pour que mu toog. Mm-hmm. def nañ ko. très bien sànq wax na affaire commission spéciale. Mm-hmm. commission spéciale bi bi ñu ko defee. Mm-hmm. sunu xaalis ñun moo ci dem. ak dem di bind ay bind lettre ay nit yoo xam ne ñoo ñu jàppale. les comptes ont été faits correctement ku bëgg ñëw seet gis xaalis bi fi mu jaar mun na ko xam te yàlla xam na ne commission bi à ce moment là ça avait été créé que pour sauver la Jeanne d'Arc de la relég d'une seconde relégation au football mais yeneen discipline yi kenn defu leen dara mais amoon na ñeneen ñu nekk ci suuf doon leen jàppale pour que ñu mën a avancer mmh, mmh, mmh. donc léegi 10 000 francs bi dix mille francs lan la si su fekkente yow da nga naan ne da nga bëgg Jeanne d'Arc mille francs bi carte de membre Jeanne d'Arc la du carte supporter mhm. carte de membre actif pour bokk ci Jeanne d'Arc mhm. soo joxee dix mille francs bi dans la carte il est indiqué des cases mhm. il y en a douze de octobre à septembre octobre 2015 à septembre donc en plus de 10 000 francs ku ku nangu en tout cas bokk ci Jeanne d'Arc après il faudra s'attendre chaque mois à verser 1000 francs d'accord ça fera quoi 22 000 francs l'année 22 000 francs nga diviser ko par 12 du la jox 1800 1900 francs CFA joxeel Jeanne d'Arc 1900 francs CFA par mois pour naan ne da nga bokk ci Jeanne d'Arc ne bëgg nga Jeanne d'Arc bëgg nga jàppale Jeanne d'Arc qu'est-ce que ça coûte loolu cherul. mënuloon nee ni danga nga bëgg a Jeanne ba pare ngay toog di naan da nga may joxe 2000 francs après fu ñu ci wax journaliste bu la ñoo jox micro nga wax saaga non ma ne loolu dañu bëgg mu dañ. mu jeex parce que defe naa euh, ci club bu ñu créé en 1921. ba mhm. fii jamono toll. waaw euh, euh, mu ne war ngeen tal leneen lu dul ay wax. wax droit parce que seen objectif mooy defaraat Jeanne d'Arc ak discipline yi ci nekk yëpp loolu mooy objectif bi. lan mooy plan yi wax nga assemblée générale mhm. wax nga ay daje yoo xamante ni dina am en plus des cotisations. Mhm. mais qu'est-ce prévu ci fi mu toll nii pour ñi nga xamante ne ñooy seetaan et qui que nekkuñu wo au courant que ngeen di préparer Jeanne d'Arc Bon, aujourd'hui, je vais commencer par euh, le comité directeur. Mhm. parce qu'en fait on veut opérer une rupture. Mhm. AG yi amoon ay problèmes yëpp. Mhm. c'est parce que à mon avis. on n'appliquait pas les textes. problème liste lañ doon def. Doudou Sarr vient avec sa liste. Pape vient avec sa liste. loolu moo doon indi. affaire assemblée Ndiaga Ndiaye qui s'est terminée en queue de poisson. Aujourd'hui, on a décidé d'appliquer les textes. Les textes et le de la Jeanne d'Arc dit que l'assemblée générale élit le comité directeur. Mm-hmm. Pour cette assemblée générale-là, nous avons décidé de faire des lettres d'engagement individuelles. D'accord. comité directeur, et après le comité directeur se chargera en conclave derrière le bureau. donc il ne peut pas y avoir d'assemblée Ndiaga Ndiaye xeex jàppal indil parce que qu'est-ce qui se passait dañuy wax ko bëgg comme bokk comité directeur ja Dout Sarr yëkkati loxoom tout en sachant il peut pas mettre un franc ñu def ko ci presse bi il vient il est membre du comité directeur et après c'est quoi il faut cotiser dans le membre du il faut cotiser dans le comité directeur personne ne cotise où est-ce qu'on va pour faire du sport il faut des moyens ah, c'est important Aujourd'hui, avec cette assemblée de rupture, il y a un ticket d'entrée pour le comité directeur. C'est 250 000. 100 000 francs payables avant de d'élire le bureau. et les 150 000. te bëri na ay kilifa yoo xamante ni gendarme après personne ne pourra dire non j'étais pas candidat on m'a c'est trop facile. donc euh, rendez-vous bu njëkk bi la.

nous. Une personne. Une personne, une, une carte. carte. D'accord, okay. d'accord, mmh. d'accord. Donc euh, voilà, je voilà. pense qu'on a parlé donc de la date de l'AG. Uh-huh. On est vraiment désolé mhm. d'annoncer maintenant que la date est reportée du 31 octobre à la date du 7 novembre. Mm -hmm. C'est involontaire, mm -hmm. vraiment, mais c'est une, une, question de salle. Donc la salle dans laquelle l'AG doit se tenir n'était pas disponible. Elle avait été réservée par d'autres personnes depuis le mois de mai et on ignorait ça. Et donc voilà pourquoi nous avons été obligés de reporter, reporter. donc l'AG à la date du 7 novembre. Voilà. voilà. voilà. voilà. après assemblée générale bi mën nañu yaakaar at yu néew jaraaf euh, pardon JA revenir ci élite football sénégalais. nous l'espérons vivement c'est notre seul souhait. c'est ce que nous vous souhaitons en tout cas. parce ans. trois ans may <laughs> trois ans du ans dañu ans Jeanne d'Arc dina leen dina yóbbuwaat Sénégal fi mu ko. c'est ce qu'on c'est ce qu'on donne vous parce que da ngeen xewoon bu Omar Pène woy leen ah. ah. Jeanne d'Arc mii may woy dans trois ans. dans trois ans incha allah. incha allah ñaanal leen ñu rek. merci merci en tout diggante bi euh, patrimoine national. ah oui ah oui ah c'est sûr c'est sûr leen di ñu gërëm bu baax et puis euh, mos nañu la invité euh, ñëwoon démb. waaw ah il faut nga ñëw attends ah, boobu boobu dama ko raté. parce que sur le coup maa ngi bëgg programmer léegi ñëwoon démb pour nga nekk prochain invité bi. <laughs> sinon je voulais ajouter une chose parce que pour vous dire que c'est un problème national. Ah. des des gens du Jaraaf. Mhm. m'appellent pour me dire que defu Ah. il faut que ça passe. ah oui Dia moom leen ko yow kenn. en l'occurrence les boy bandi Chérif Kandji il m'appelle pour me dire. Dia mm-hmm. mais Dia. loolu lañu loolu lañu bëgg a gis loolu lañu bëgg a gis derby Sénégal fii. jaraaf jia la te vraiment génération yi seetaan wuñu ko ñun ñi boobu seetaan man man rappelé wu fu ma seetaan au contraire samay mag samay tante samay bàjjen laa doon gis ñoo xam ni dégg wax dañuy seetaan jaraaf jia man seetaan wu tey jaraaf jia vraiment merci encore voilà ñu ngi leen gërëm bu euh, baax a baax a baax a baax merci voilà euh, madame Sakho ak euh, Doudou Sarr bu d'arc donc c'est euh, comme ni nga koy waxee rek hmm. ah, hmm. a gën a gën a a jàpp hmm. club bi bañ a bàyyi xiiroo beeg ngaayoo bi ndaxte comme li ma ko waxee sànq euh, Jeanne d'Arc xaalis moo ko indi fii tollatuñu foo xamante ni xaalis moo taxaat ñuy gën di ni ñu organiser waat defaru waat pour mën a ñëwaat ci équipe Sénégal merci Ndiaye Pobar ñu ngi lay gërëm bu baax Ndiaye digital euh, wala Mamadou Ndiaye pour euh, li mu ñu indil tey jëm ci euh, Jeanne d'Arc on va parler de tout à fait autre chose ci li ñuy annoncé la dernière fois ni ñi nga xamante ni ñooy créer wala ñoom ñooy innover on leur demande de venir nous voir léegi on va recevoir notre invité muy monsieur Amadou Lamine Kane moom mooy directeur du centre de formation et donc solution bu Parcelles Assainies grand prix du chef de l'État pour l'innovation technologique avec la solution bii di système de gestion gestion de compteurs électriques à distance ya y a tellement de sénégalais yoo xamante ni dañuy créer ay mbir yoo xamante ni euh, ñaare euh, on a sa à penser que euh, ay tubaab ba koy defar. Mm-hmm. wala ñeneen a koy defar et pourtant xam-xam dëkkul fenn fii Sénégal suñu borom xam-xam yi dañu xarañ waaye ñàkk mm-hmm. moyen souvent mooy tax ba du ñu mën di gën a yaatal seen ay liggéey heureusement que bëri nañu ay Amadou Lamine Kane suba di nga recevoir prix bi ci loxoy chef de l'État ñu ngi lay nuyu gërëm la. Euh, ci sa teewaay tey ci yeewu leen bi d'abord dañu bëgg nga wax ñu euh, ci euh, li jëm ci grand prix du chef de l'État pour l'innovation technologique ak li nga xam ne ni moom nga muy système de gestion de compteurs électriques à distance qu'est-ce que ça veut dire Pape Cheikh maa lay nuyu. Mhm. di nuyu nekk ci plateau mhm. en fait euh, grand prix du chef de l'État. Mhm. prix bu ñu jox la. pour euh, Sénégalais yi di innover. waaw dans le domaine technologie. Mm -hmm. maintenant c'est dans ce cadre-là. Euh, la concevoir benn solution de compteur euh, bi gérer mix énergétique maanaam day am ñaari source énergie ñaari courant courant bi dox ci jant bi ak courant bi euh, jóge ci Sénélec d'accord bu may def loolu c'est pour permettre Sénégalais yi seen facturation électricité wàññeeku mhm. on sait que actuellement Euh, courant dafa cher. Mhm. et souvent te Sénégal jant bàyyi fii te kenn utiliser wu ko. Mhm. donc bu ma xalaatee loolu xool problématique énergétique mën na nag xool il faut moo wut benn système de compteur. Mhm. bi réguler ñaari. source d'énergie. qu'est-ce que ça veut dire bu fekkee danga am compteur boobu noonu nga créer sa kër par exemple. ci heure bu la neex mën nga jëfandikoo courant bu jógee Sénélec ci heure bu la neex tamit mën nga jëfandikoo courant bu jógee ci naaj bi par exemple. exactement man bi ma. ah je comprends vite exactement. <laughs> man na ma gën a pousser réflexion bi na ma ñëw na comme ñun Sénégal yàlla may nañu jant. 19 heures. Mm-hmm. léegi na mën a on doit prioriser source énergétique bi jóge ci jant bi. Mm-hmm. léegi Sénélec dee ñëw en appoint. Mm-hmm. parce que ñëpp xam nañu ne tey soo amee facture vingt mille mm-hmm. en réalité trente mille la war a fay parce que état bi da ko mm. subvention boobu dañ def ko si kit solaire moo gënoon ah parce que kit solaire boo def c' vingt cinq ans de durée de vie parce que keroog rek ñun bi ñuy waxtaanee affaire environnement ak COP 21 bi nga xamante ne ñoo koy préparé ci France euh, ki ñu invité woon di ñaañe euh, si mu ngi expliqué te loolu itam euh, ab dem ci bopp ñëpp même ku dëkkul Sénégal mm-hmm. comment se fait-il exploité bu baax pour courant bi am na dëkk yoo xamante ni bu doon dëkk tubaab yi la ñu am naaj bu mel nii defe naa euh, askan wi sax dootuñu fayati courant heureusement que am na ay génie yu mel ni yow yu fi nekk di créer ay mbir yu am solo donc explique nous un peu nga wanaale ñu ko euh, voilà euh, affaire bi eh, lii moom compteur la uh-huh. en même temps day amaale benn modem d'accord maanaam modem bi day am benn puce benn opérateur maanaam mun na nekk Tigo Orange ou bien Expresso d'accord Euh, modem bi day interagir maanaam day dialoguer ak benn réseau informatique bi permettre supervision au bi. d'accord ak di gérer euh, geste compte bi maanaam paiement à l'avance. Ah. maintenant sur le plan local. Mm -hmm. bi day gérer aussi ñaari source di ko réguler. Mhm. di prioriser jant bi par au pas au détriment mais. Euh, à l'avantage du soleil. mu mhm. mm -hmm. prioriser soleil bi au détriment un peu de la Sénélec. d'accord li yëpp compteur bi moo koy def. d'accord et permettez aussi de dire que liggéey bi certes man maay chef de projet bi mais ay sénégalais comme man. liggéey ne si jàpp ne si. et souvent on est six ingénieurs sénégalais yu si liggéey. voilà donc toog xalaat ci. voilà ça a pris combien de temps pour créer euh, ça. on l'a euh, théorisé en 2010. 2010 d'accord te 2015 la pare. d'accord et bi ñu ko defee. Uh-huh. def. conception bi fii. Uh-huh. on a cherché un partenaire chinois. d'accord parce que yenn appareil de mesure yenn précision yi amuñu ko au Sénégal. donc ah. si waxtaan ak benn partenaire chinois. Uh-huh. yóbbu foofu prototype bi mu defal ñu benn. Euh, beneen prototype mais commercial. d'accord d'accord et lu gën a neex ci mbir bi maanaam chinois bi. Mhm. il est prêt à venir au Sénégal s'installer et créer des emplois. après loolu problème la am na benn rubrique boo xamante ni jeudi la ñu koy def ak euh, ak ak ñu jagleel ko lépp lu jëm ci wàllu science ak technologie. Euh, c'est-à-dire aspirine sax gis nañu ni suñu borom xam-xam yi mën nañ ko defar. exactement mais ñàkk moyen ak moyen de distribution mooy tax ba ñun du ñu mën a defar donc du coup yu baax yëpp dañuy foog ni. yéen a ngi fi quest pour euh, loolu bañ a amati Sénégal. merci Pape Diallo si question bi mm-hmm. vraiment question bu am euh, solo la. Mm-hmm. c'est très simple. Mm-hmm. yàgg naa wax benn wax loolu si lutteurs laa koy jëlee. ñun Sénégal ñu ñoo war a di mayante alal. waaw te production locale. ku ko jàppalewul mm-hmm. dëkk boobu ah je m'excuse mais du dem fenn mm-hmm. su fekkee ne problème bu am rek ñu importé mm-hmm. ah du baax lépp dafa war a commencer ci benn ñu koy amee améliorer bu ñu am un produit fini mettre une Sénégal bu taxaw loolu c'est possible pour loolu rek même soo xoolee dans le PSE am na ci ay ponts yu ñuy wax transfert de technologie ay solution la ah oui ah Sénégal la ñuy gis benn affaire te duñu jéem a xool ndax. ñu koy defee <laughs> ñu wut moyen pour defar ko fii. Mm. c'est-à-dire ba ci fauteuil sax bu ñu ko dee jënd dañuy dañuy jënd bi ñeneen ñi defar. alors que menuisier yaa ngi fii Sénégal c'est grave am na bis boo xamante ni ci saison yeewu leen bi daaw ñu ngi wax ak benn xale boo xamante ni euh, dafa defar oto. c'est un sénégalais avec les moyens qu'il a euh, defar na loo xamante ni peut-être ñeneen na koy faral di defar. Mm-hmm. il est parti vivre en France on l'a appelé et malheureusement amul ku ko jàppale moom itam pour mu mën a euh, distribuer mbiram après yow am nga chance u euh, nekk euh, grand prix du chef de l'État pour l'innovation technologique avec la solution pour la régie euh, tey lan ngay xaar ci sargal bi lay waaj sargal suba ah lu mu siy mooy comme on dit borom ki ñu koy ambulant boo gis. magasin mu ngi ci xelam. xool ba supermarché ca ne. très bien boutique mag yi. très bien boutique mag boo gis. Ah. magasin mu ngi ci xelam. man lu ma bëgg mooy sama prototype bi ñu permettre mu am une commercialisation. Mhm. industrielle. très bien nationale ak internationale. super xam-xam bi mu ngi fi. Mhm. xale yi mën ne ko. Mhm. volonté politique dong la laaj. voilà voilà exactement loolu la. donc c'est comme ni nga ko waxee volonté politique yu mel nii euh, dafay war a encourager gouvernement yi sunu gouvernement yi ñu recevoir leen wax leen jox leen qu'il pour ngeen gën a mën a développer seen euh, savoir surtout seen li ngeen xam-xam bi ngeen am c'est pour de c'est pour l'intérêt de la population ndax bu ñu exemple États-Unis le jeune Mohamed xam nga ko Mohamed xale expliquer ko parce que gis nga histoire mooy montre sori ko ko defar ñu sargal la mi Ndaw bi ñu koy saluer passage bari ay actuellement jeunes sénégalais yi nga xam ne ñu ngi fi ñu ngi innover di créer moo tax suñu gouvernement vraiment war jox leen les moyens qu'il faut. pour ngeen gën a mën a développer. ba ci internet bi y' tellement de jeunes ay développeurs yu créé ay donc nous sommes tous fiers de ces gens là. alors comme appel bi ñu defoon si toutefois yéen ñii seetaan ñoo xamante ne am nañu naa am nañu télé boo xamante ni euh, euh, c'est la télé à part donc venez gratuitement euh, ngeen def promotion yi ngeen créer ak seen xam-xam nous on en parle et may leen may leen may promo bi et on ne sait jamais mën ngeen am euh, chance bi nga xamee ni euh, Amadou Lamine am na ko euh, pour nekk grand prix du chef de l'État donc suba rendez bi fan la. Sorano à 9h à 9h ma je viendrai. inchallah il faut que président bu lay nuyu ma ñëw ma ñëw njëkkante ak yow njëkk ko jox la ko. avec plaisir <laughs> waaw ne maa ko créé merci en tout cas. merci félicitations merci, merci, donc je rappelle que affaire baa ngi nii solution la bu jëm ci wàllu gestion de compteurs électriques à distance. merci monsieur Diallo merci merci. on a beaucoup d'invités tey a da ngeen bëgg ñu recevoir keneen. ay ayca yéenay bañ. Ah. maa je fais ni ku toog sama bureau de. <laughs> <laughs> le bateau de le bateau de Amadou Lamine Kane part beneen bateau mooy costé <laughs> pourquoi pourquoi on a choisi de recevoir des jeunes parce que à chaque fois dañuy gis ay xale yoo xamante ni yu exceptionnelles la ñuy def on ne parle jamais d'eux dans les médias et pourtant ils ont ils ont ils ont des idées de génie par exemple euh, waaj ñëw léegi nii yaaw wool ma ko mu dugg mu recevoir ko euh, moom c'est un artiste d'abord alors dafay def benn tournée boo xamante ni mu ngi ko tuddee charrette humanitaire mm-hmm. charrette humanitaire il part dans certains villages di jàppale xale yi euh, ci wàllu propreté waaye jàppale leen itam ci wàllu école bi mm-hmm. donc charrette am lay yore rek bu demee dëkk ñoom Zeyna am lu mu jàppalee xale yu nekk foofu noonu alors ak projet bi nga xamante ni mooy une école une poubelle alors euh, vidéo euh, dinañu ko wane ca kanam mais on a les images en même temps euh, Mame Dji Rassoul merci bienvenue ce matin ci yeewu leen bi alors dañu bëggoon nga wax ñu ci concept bi nga tuddee charrette humanitaire lu muy tekki waaw maa ngi nuyu équipe bu yeewu leen yëpp ah. di nuyu Sénégal parce que pour ñun tournée charrette humanitaire dañu jàpp ne euh, ñu bari bu ñuy jóge Europe di ñëw Sénégal di def humanitaire ay milliardaires la ñuy doon. te bu ñu koy def dañ koy def pour réduire seeni impôts. Mm-hmm. donc man sama sama musique. ma gis ne depuis 96 ba léegi maa ngi musique mhm. mais amul dañuy critiquer dañuy dénoncer mais amul benn changement boo xam ne am na mhm. ci suñu musique école bu benn artiste tabax mbala lu bari daal boo xoolee artistes yi waaye rek la ñuy def mbala di kaas donc mhm. man ci sama xalaat nag ma ne nañ jéem a rallier euh, l'acte à la parole musique buy servir quoi. waaw mooy rejoindre l'acte à la parole donc yàlla def depuis mille 2010 lañ ko def di topp ay village dem biñ ko biñ demee aussi dañ dem teg concert charrette yéeg si kaw déglu askan bi. Mhm. chaque fois da ngay gis askan bi dañ naan. c'est quoi ci charrette ngeen di taxaw. waaw parce logistique bi mooy moyen bi gën a yomb <laughs> loolu mooy moyen bi gën a yomb. parce que dañuy tekki sa mbaam bi mbala fas. na nekk charrette rek dakk kook ay bant. xam naa di lii lii bi. Uh-huh. ñun dañuy yéeg si kaw parce pour ñun dénk bi ngay yéeg pour concert. Uh-huh. dénk-dénk la rek bois bois la. donc xaalis boobu ñu nar a def si logistique lumière ak yooyu moom la ñuy jëndee eau de javel. topp ay poste de santé yóbbu ko parce que si li ñuy musique dañuy gis ne jigéen ñu bëri bu ñuy am doom. si kaw gi ñu si bëri boo laajtee bu ñu am sax benn bu ñu amee doom ba pare donc loolu sage-femme yi ne foofu ñoo ñu koy wax. Mhm. comme mënuñu topp village bi ku ne ñu jox la benn bouteille eau de javel. Mhm. ñu yóbbu ko si poste de santé yi. léegi ku ñëw am doom ko moom ñu def ko loolu ah. idée lool loolu la. par rapport ak suñu musique. parce que album bi may génnee la lettre du continent maa ngi koy defee Mali si studio Manjul. Mhm. dafa war a nekk chaque titre. day ànd ak benn projet social. def nañ benn euh, un taalibe une paire de chaussures benn daara bu nekk warang deux cent deux cent taalibe. def nañ ko lool it suñuy suñuy moyen uh-huh. la ñuy la ñuy dajale ak samay xarit ak ñi nga xam dañuy dañuy dañuy soutenir l'artiste. Uh-huh. la rentrée aussi jéem nañoo teg lu mel ni une école une poubelle. Uh-huh. parce que bërigo 6000 rek lay jar. dëgg la ma profité pour wax sénégalais parce que ñu bari dañu lay bind ci réseaux sociaux yi naan la da nga am xaalis non amuñu xaalis. richesse bi ñu am mooy yàlla lañu am. boo ko amee rek am nga. alal boobu nu mu demee da yóbbaale ay poul mbalit yu bëri di ko joxe ci école. waaw boobu it man ak samay xarit comme ni ma la ko waxee rek ak sama staff ñi ñi nga xam ne ñooy jàppale l' artiste Mame Dji Rassoul mhm. ak euh, ki nga xam moo war a produire album bi mooy Coprominch mhm. ñoom ku ne rek da ngay joxe li nga am sama grand frère ku benn bërigo joxe comme ñaari bërigo joxe ñu dagg ko ko daggee uh-huh. ñun ñoo koy peintural suñu bopp parce que suñu waaw suñu biir staff am nañ koo xam ne euh, lii moom graf graf la mooy dessiner affaire yi après ñu dem si benn école bu ñu demee dañu yóbbu benn slogan comme ne xale yi euh, une école une poubelle mais pas belle les parce que yàgg nañ di way salte salte salte mais changement amul ba tey ñi ngi sànni pot ñi ngi sànni loolu war ngeen ko def ci quartier yi non si biir école des poubelles non loolu si école yi la <laughs> mais maternelle bi lañ ko ko mooy la petite enfance lañ ko def si la rentrée waaw ñun si loolu foofu la parce que suñu politique dañu ne. mag ñi moom moyen bi pourri na ba pare. raw nañ ba pare donc nañ jéem a viser. <laughs> Euh, nañu génération bi growul parce que ñooñu ñoo mën a changer Sénégal mais bu dee man man ak samay morom. Uh-huh. tey waaw dem nañ ba pare quoi donc loolu mooy loolu mooy idée yi daal. idée yi nag idée yi bëri na projet yi am na sax peut-être juma benn basang lu si na rek day. day day rallier suñu suñu. mais mais mais mais booy bi il a de si idées ah. mais parce que daf lay. <laughs> mais boy bi il a de en tout cas ñun lii la ñu bëgg a ah, xale yi mm. nekk fii ci dëkk bi ku ne nga am loo def loo xamante ni dafay tax dëkk bi jëm ca kanam. Mm. yéen a maar ci wax ju bëri jeeg kaas mm. euh, dëkk bi doxul yooyu noonu. Euh, nañu góorgóorlu quand même di teg suñu ay mbir parce que gouvernement mënul def lépp. voilà ah, benn école benn poubelle. Euh, charrette humanitaire yooyu yëpp. benn taalibe benn dàll. te ñu ngi buñ dogguma la ah, maa ngi jéggalu. parce que sénégalais yu bari dañuy dañuy diingat. ñu nit bu ñuy taxaw ci plateau yi di ko wax mhm. dañu bëgg a suñu yeneen morom artistes yi ñu def na ñun très ne sa koñ nga def noonu peut-être bu yàggee changement dina am mais li ñuy def aussi du ngis tal mhm. bu ñu ñëwee fii tey TFM mhm. émission bu mel nii ak euh, auditoire bi mu am dañu bëgg a suñu yeneen i morom dañ jéem a lever wu parce que l'heure moom l'heure est grave quoi voilà l'heure est grave comme dit Monty c'est l'heure c'est l'heure Pape Cheikh lu mat a toppandoo la parce que xam nga fi Sénégal on a l'habitude di toppandoo yii dañ ko war di toppandoo même moom bu dee concept am la ah. mm-hmm. keneen ku mm-hmm. bi su fekkee ne am na ku bëgg adhérer ci sa projet ku bëgg ku la bëgg jàppale ah nan lay def nan la lay contacter waaw parce que am na ñu bari ñu may contacter ak sama sama staff naan ñu wéy est-ce am ngeen compte mm-hmm. wala est man dama ne lépp lu ñuy def xaalis bokku si parce que Sénégal fii mooy Sénégal suba boo dawalee Porsche Cayenne ñu ne si la ko amee <laughs> donc ku bëgg def dara da ngay jënd say poubelle nga contacté ah, ñu nga jox leen nga régler sa eau de javel mais man personnellement moom parewuma pour laal xaalisu kenn ah, waaw loolu moom loolu pour mu clair si ñuy déglu lépp nag ku bëgg a soutenir waaw sur ak les réseaux sociaux yi waaw yëpp maam ji rasul am na aussi page tourne charrette humanitaire parce que dimanche bi ñun ñi ngi dem ñi ngi dem alors si Mbour la nekk ak Malicounda commune Malicounda wala ñuy def tournée boo xam ne maire yi dañuy ñëw ndaw ñi ñëw jigéen ñi ñëw ah. ñu yéeg si kaw podium bi def li ñu war a def aussi ci saret kaw saret bi rek même mën nañ la invité en tout cas en tout bi wóor na mbaa ngeen daanu non dañ koy non ñun ñoo koy gasal suñu bopp dama la ne ñun bu ñu def loolu du am star du am sax kuy ñëw ko man dama mbala ku mën a ñëw rek da jël ileer gas jël bant takk nga jàpp ci quoi parce que ñun suñu jéem a sensibiliser. amul kenn ku fay ñëw ku nekk star mbala ku sut moromam ñëpp même pied d'égalité en tout cas même ñun ci yeewu leen ah, am nañu benn projet euh, pour euh, du ma ci sori jëm ci wàllu set setalu quartier yi mhm. euh, on en parlera très prochainement je rappelle que bu weesoo projet yu am solo yooyu nga xamante ni yaa ngi ci dëkk yëpp ce clip mu ngi tudd Mbiifee wayu mbëggeel bu neex boo xamante ni puisqu'on n'a pas trop de temps c'est une chanson qui passera tout à l'heure ci taxawee rapidement. parce que damay course ak heure bi. lii rek la refrain bi yomb na lu tax ngay caqat caqate sama bi comme ça c'est fini lu tax ngay caqat caqate sama bi comme ça tout est foutu. ah mbife mbife oh merci beaucoup <laughs> merci maam ji Rasoul ñu ngi lay gërëm da ngeen foog ñu neexul ndax ni mu woyee nii kon déggu leen clip bi. nga may xool ni at fi nii nga may xoolee. da lay dóor de <laughs> non naa leen tegal clip bi euh, comme ça ngeen déglu ko mbii fee waxul mbii fa fooree de mbii la wax. en tout cas on est très ravi de savoir que euh, moom euh, am na ay projets yu am solo yoo xamante ni mu ngi ko jagleel xale yi avenir dinañu waxtaanee tam xarit fi lekk ay minutes ak Mado lañ ci àndal yenn ci ay croyances yoo xamante ni am nañu ko jëm ci tam xarit bi soit aada wala diine yi ci diine wax nag suba lañ koy lañu koy faram waaye tey dinañu wax surtout euh, ci euh, aada ak yenn ci ay gëm-gëm yoo xamante ne am nañu ko fii ci Sénégal mm-hmm. Alfie comme chaque mercredi euh, li mu ñuy toggal tey crème la mais dama koy dax ba ca supplément ba bu ko defee xale yi mën a xam naka la ñu koy defaree il est exactement 9h33 minutes je suis entouré de drôles de dames yoo xamante ne amuñu notion du temps donc Alfie jarul nga may woo yow ca kanam ngay ñëw bu ko defee nga jàmbal ñu nga jàmbal ñu crème bi ah dafa war a moo tax. oui parce compliqué. waaw def naa parce que am na am na ñu may wax souvent. Alfi Alfi li muy wane daf koy togg këram je leur dis toujours non. c'est vrai c'est vrai ci plateau bi la koy toggee. defar ko wane ko. parce que. voilà dafa takkee parce qu'on temps pendant que yow ngay wax man j'ai tous mes trucs. kudd yi ñuy dégg ak fourchette yi di kii yëpp maa ngi ci rek. waaw commencé commencé commencé comme comme comme da nga koy euh, da nga koy da nga euh, koy defar mu sedd defaral après ca kanam comme Sofia la ñu àndal. ñu ñu ñu mbi fa foore ko dugal ko. bu ko defee après yow nga tibiri bi jooju. ñun ñu mën laa tëbëjee. waaw bu ñu paree mbi fa foore yëpp voilà. nag mu ngi toog euh, moom dafa commencé woon série reportage boo xamante ni mu ngi ko jagleel yi fi sëy mbiru sëy ñoom ku jeeg yenn saa yi sax euh, euh, nga doon ab sénégalaise jeek pire euh, sa borom kër takk tubaab tubaab yooyu di wujje nag lay waxtaanee boobu ba tey ci rubrique bii ñu tuddee parmi nous mm. et moom elle est parmi nous donc dañ ciy dem léegi nii Chiara merci d'être là sama sama yaayu doom tey on poursuit ces reportages sur le mariage voilà aujourd'hui parce ah. qu'on a commencé une série de reportages qui concernait la polygamie mm-hmm. et on a vu que Euh, le terme polygamie ça vient de du grec que mm. gamos ça veut dire plusieurs mariages mm-hmm. donc souvent on se trompe quand on pense que la polygamie se réfère au mariage d'un homme avec plusieurs femmes mm-hmm. parce que le mot euh, correct est polygynie d'accord polygamie ça indique aussi la polyandrie, que c'est euh, là où euh, un ménage est légitimé entre une femme et plusieurs maris polygamie mooy góor am ay jabar yu bëri polygynie daal di wax ni xaw ma lu muy tekki mënu ma koo wax ci wolof daa dina waxaat beneen bu tudd polyandrie mooy jigéen bu am ay jëkkër yu bëri muy loo xamante ni xel xalaatu ko fii ci Sénégal waaye ndekete am na dëkk yoo xamante ñoom seen xel mi ma ngay mbii fa foora yooyu là on rentre dans dans les de l'anthropologie de la recherche de, sciences sociales de ta, a, profession disons et ce qui est bien c'est euh, de connaître parce que souvent on a l'habitude de juger sans connaître et c'est là que ça peut même mm. donc c'est bien. parce que dëkk bu nekk ak tradition am chaque pays. voilà a sa, chaque pays et c'est euh, important quand même de connaître pour pouvoir après respecter si euh, par exemple euh, des villages reculés de l'Italie et je raconte qu'au Sénégal ça la polygamie c'est bizarre pour eux. donc même si je vais actuellement en Italie. am na am fii Sénégal boo demee nettali ko ci yeneen dëkk dañuy ŋaaw seen mm-hmm. gémmiñ ne waaw lii am na. c'est comme par am na dëkk yoo mm-hmm. xamante ni dañuy jaamu nag. bu leen ne Sénégal dañuy lekk nag dañuy ŋaang dañuy tiit mm, parce que dëkk bu nekk ay croyance am am na dëkk yoo xamante ni boo fa nekkee da ngay def fekk leen ñuy lekk ay sindax ak ay jaan ak ay bërbatóor ak sax su su xóor yooyu noonu nga xamante ni ñun bu ñu ko lekkee fii ça nous fait tellement bizarre comme quoi chaque pays a ses euh, traditions ses traditions et là la polyandrie effectivement ça existe encore mm-hmm. euh, dans certaines communautés même si c'est une pratique qui est en train quand même de disparaître c'est comme ni yaramu neen rek et ok je peux lancer le reportage <laughs> Pape je lance je lance je vais expliquer c'est quoi la polyandrie et là où on peut trouver cette pratique. <laughs> de sang au Sri Lanka, dans les royaumes du Bhoutan, au Népal et surtout au Tibet. Il y a deux typologies de polyandrie. la polyandrie fraternelle ou adelphique, situation dans laquelle une femme se marie avec un groupe de frères, et la polyandrie associée ou un mariage monogame déjà existant s'ajoute à notre mari. Dans le cadre du mariage polyandrique, les frères aînés détiennent généralement l'autorité sur la famille. Les enfants naissants de cette union sont les enfants de tous. Ils appellent les frères aînés père et les frères cadets père-frère ou La polyandrie est un modèle familial culturel qu'on attribue à des raisons économiques et démographiques. Économique afin de prévenir la division du patrimoine familial, partager le travail et assurer un meilleur niveau de vie. Démographique afin de diminuer le nombre de naissances. Autrefois, cela pouvait également être une nécessité dans les sociétés guerrières où l'on mourait souvent au combat. La polyandrie protégeait ainsi la femme qui pouvait compter sur ses autres maris. Les personnes qui choisissent la polyandrie admettent l'existence d'un certain nombre de problèmes au sein de ce type de ménage, comme la préférence de la femme envers l'un des maris ou quand l'un des frères cadets défie l'autorité de l'aîné. Lorsque l'un des frères n'est pas satisfait de l'arrangement, il quitte la maison familiale pour s'installer sur un petit lopin de de la famille où Dans un article du magazine Time, la polyandrie est vue comme une alternative à prendre en considération. Selon la journaliste Judith Warner, le fait d'avoir plusieurs maris garantirait des revenus plus importants et pourrait combattre aussi la pauvreté infantile. Le débat est ouvert. voilà Kiara moom moo nekk parmi nous euh, gëstu boobule mu ngi ko jagleel li ñu tuddee euh, polyandrie loolee xel xalaatu ko wax nañu ko léegi nii naam ci français la ko wax ma jéem koo ficci rek euh, jigéen yooyu nga xam ni mën nañu am <laughs> ñaar ba ñetti jëkkër. ça fait quand dans certains pays. si Pape Sambi va m'aider j'ai une photo qui a une carte géographique on peut voir. non Pape n'est pas venu aujourd'hui c'est Tonton Mac qui est venu. ah ok d'accord Tonton voilà on la zone entre en Euh, la Chine et l'Inde. Ça regroupe les pays où la polyandrie est tolérée. Donc, uh-huh. euh, on la retrouve euh, dans le nord de l'Inde, au Tibet, au Népal, au Sri Lanka, au Bhoutan, comme on avait vu la semaine passée. Voilà. Uh-huh. Mm pas en Afrique. En Afrique, on trouve dans des tribus du Nigeria. Ah. Nigeria. surtout dans le passé, c'était dans certaines tribus du Nigeria. Et euh, voilà, il faut préciser que seulement dans l'État du Bhoutan, c'est mhm. légal. Ah. Donc c'est admis par la loi. Dans les mhm. autres pays, c'est toléré. Mais ce n'est pas, légal. Donc c'est reconnu seulement un mari comme le mari officiel. Euh, comme les reportages le disaient, il y a deux typologies de polyandrie. loolu kat nag xel xalaatu ko nag wax dëgg doom yan sax ay ay aye bi nag nu muy demee qui était répondue dans les reportages. ay aye bi nag déjà il faut préciser il y a deux types de polyandrie la polyandrie qu'on retrouve le plus souvent c'est la polyandrie adelphico-fraternelle où une marie un groupe de frères et après il y a la polyandrie associée ou un mariage monogame déjà euh, en place ça se rajoute des autres maris pourquoi ça existe euh, dans certaines communautés kon yow Kiara ñi ñi gis ñi ñoom dañoo am ay jëkkër yu bëri Euh, voilà, là c'est les, les, parce que dans un mariage, c'est les maris, la femme avec les maris, c'est des, des, des, familles réelles euh, qui, qui, existent. Et dans ce type de ménage, euh, euh, les, frères aînés, on prend le cas de la polygamie fraternelle, c'est celui qui, gère un peu la famille, donc les frères aînés. Concernant les enfants, les enfants qui naissent de ces ménages, c'est les enfants de tous et ils appellent les frères aînés. Les autres pères sont appelés. En délit fii au Sénégal. c'est oui, non, c'est un délit. Même en Italie, c'est c'est la bigamie. la polyandrie. En fait, c'est des raisons économiques, des raisons euh, démographiques. Je le fais très rapidement. c'était pour ne pas partager l'héritage. Ah. Donc, euh, euh, une femme marie un groupe de frères, comme ça, la famille est restée unie. C'était pour partager les travaux domestiques, parce que les maris aussi, dans certaines communautés, ils aident dans les travaux domestiques. Euh, après, c'était pour avoir, c'était surtout dans des communautés très pauvres, donc pour euh, unir les revenus qui rentraient à la maison mmh. et, et, et, pour diminuer euh, les taux de naissance. Mmh. Et surtout, il faut préciser, par exemple, dans des pays comme l'Inde, il y a euh, souvent des avortements euh, préventifs, sélectifs, parce que les filles... Avoir un... avoir. Euh... Donc c'est la femme et ses maris. Oui. Non, là, c'est un article du Time, ah, magasin Time, une journaliste du Time. Elle a lancé quand même une provocation et dis en disant est-ce que la polyandrie comme ménage, ça peut être une réponse et une solution vu qu'on a plusieurs maris qui travaillent, qui ramènent euh, de l'argent à la maison et on va voir moins des enfants. <laughs> Donc ça peut combattre la pauvreté infantile. Je vais terminer euh, avec euh, une petite vidéo mhm. parce que je vais. Tu je vais présenter mon ñaareel. ton ñaareel yow mbaa da ngaa André. parce que euh, dans ma communauté l'Italie <laughs> ah, c'est ton mari est en train de regarder le tuyau Sénégal de déliler. attends eh, si ben c'est pas grave ma mariée il le sait mais. mais si ton mari le sait faut pas oublier aussi que c'est interdit. <laughs> alors la police Laisse-toi. <laughs> rapidement, montre-nous ça. Comme ça, on passe à autre chose. On l'avait fait, Si la régie peut lancer les vidéos. Allô. sama xarit mais maa lay seetaan mais ma xale bu jigéen bu taaru boobu nekk sa wet xale bu jongee boobu déglu bu baax lii ma lay wax man maay ñaareelam man mii man maay ñaareel bi beneen bi ci des mooy damaa bëgg nga xam ni xale bu rafet boobu taaru boobu xam ne ñëpp a ko bëgg pour man la léegi nag dinaa ci xaar sama tànk tubéy pare naa pour wutal ko ñeenti oto yoo xam ne bokkuñu pare naa pour may ko juróomi caabi kër xanaa loolu neex na lépp nag moom moo ma ko jaral parce franchement mënatuma ko muñ. te mënatuma ko maîtriser léegi nag man prenant sama deretu xol laa koy arrosé bu fekkoon ne moom garab la sama deretu xol laa koy arrosé ok jërëjëf wax dëgg yàlla sama xol fees na nag quoi mais amul problème Thiera mun na mu franchement amul nu ma la bëggeewul ciao Thiara je t'aime. lii de waxuma la van rek waaye lii moo gën a garaaw blague bon ñaareelu ñaareelu Chiara. c'est pas vrai en plus ah voilà. <laughs> merci Chiara pour parmi nous je rappelle que désormais da ngeen koy am chaque mercredi au lieu de mardi euh, ci télévision Futur Média alors Mado rapidement il est 9h44 Mamadou Mouhamed Ndiaye il se prépare pour la revue de presse laata mu koy xóotal euh, dinañu dem fekki euh, sunu xarit yi nga xamante ne invité nañu leen muy groupe bu tudd Kalabante Kalabante. Banabanté qui veut dire kaccoor wala saay-saay pourquoi ñoom ñu nekk ay kaccoor di ngeen ko découvrir dans quelques minutes en attendant ñu ngi jëm ci euh, tamxarit euh, mhm. tamxaritu daaw alfi daf ñoo bombal cere xam naa ni euh, ren nag dina tombeek àjjuma mook paayu jabet yi ñooy ànd grand guy ah, ñooy defandoo yeewu leen donc c'est dommage que duma mos ci cere alfi te doo defar cere ah bu leen defaral dara wala cere ji nga defar ko suba. ba ci cere ji baax na cere ji dafa <laughs> <laughs> Mado tam xarit euh, tam xarit bëri na ay croyances yoo xamante ni am nañ ko ci ak mhm. yeneen mbir yoo xamante ni mhm. diine euh, moo ko fi teg euh, mhm. yooyu dinañ ci ñëw suba mais tey gëm-gëm yi ak li ci yi ci aada wone moom tam xarit effectivement donc Pape Cheikh dañuy daw rek xoole li nga wax rek maanaam aada yi nga xamante ne nekkoon na fi nag mais fam ne nii gën na wàññeeku mais nañ dem xool fàttaliku aada yooy yile ayta ndax dafa fekkoon nii dafa fekk ay këru kujje la woon ay këru wujje ñu bëggoon ñëpp nekk benn moo moo indi reeru tam xarit bi waaw kër gi ay jégg fi nekkoon di wujje ñu buggoon ñëpp juboo ñaareel bay ñëw si aawa bi nekk jox ma sama reeru tam xarit nekk def rek moom tamit mu yëkkati jox ko ndax kër gi neex loolu la ko mag ñi duggee woon aada rek pour kër gi neex mhm. ah loolu kay lu baax la luy jubale kër kay moom la ñëpp war a ut si kër surtout borom kër. lu nu reeram tam xarit ba pare ba tey si aada la bokk du ñuy génn du ñu reeree ba pare bool bi du ñu koy dëpp du ñaanee di ñaan di ñaan ba li nga bëgg nga dëpp nga delluwaat defaat di ñaan di ñaan. defaat bu muy juróom-ñaari yoon ba pare nag famille bi ñëpp def du nu paree nag nga daal di yëkkati si jaret fi si kaw ñaan yàlla yàlla may ñu fekk ci yu bari bari bari ñaan yàlla bu fan ñaan yàlla wér lépp loo si bëgg daal sa njaboot bëgg ka nga ñaan ka si lu ñu xëyee nag suba door a defar tus ñaan yàlla moom daal loo si ñaan si at mii si weer wii si bés bii yàlla may xale yi nag defatuñ ko waaye duñ ko war a def cosaan la aada cosaan la fi leen ka fekk duñ ko war a ba bésu tam xarit bi ajjuma ji doo xëyee nga woor ñu demee ba timis nga teel a dog doo dogee duñ jullee timis ba pare nga dog ñu teel a reer waaw duñ ko si taab duñ ko si bëggoon ndax doo gisee ñi bëggoon ko pour ñëpp ndax lu ñuy daan peese nit ñi lu ñuy wax ne affaire peese di ko defee ñëpp du ñuy lekk ba suur naan ba màndi naan meew waaw force nit ñi ñu lekk suur waaw loolu moo doon tam doo gisee ñi boolew ñu daan wax ne nit ñi lekk ba suur di naan ba màndi ndax peese bi ñuy peese pour fekke déwén ak déwénaati jekk waaw loolu moo ko indi woon di ko defee nag du xëyee tamit da ngay lépp si jaamu yàlla rek waaw. looloo dañ ñaan tamxaritu jàmm ñu fekk ko ay déwén yi déwén kenn bañ a manqué. taaj sama taaj bi Abdou Jàmbaar ñaari malaaka la ak lan moom si kaw lay jógee daani si suuf mu ne la mënuma si dara nag. voilà euh, bu tabaski ak euh, korité ak tamxarit xeetu feet yooyu dafa am ay mhm. mbir yoo xam ni at mu jot euh, looloo indi baaxantal croyance yooyu nga mhm. xamante ne am nañ ci rapidement boo doon tënk mhm. suba di ñëw. ci li ci wax mais tey dafa am yoo xamante Sénégal dañu ko tàmm ndax aada. effectivement moom moo di njaboot bi. Mhm. lan moo ko gën a wund rek c'était vraiment rapprocher la famille ñëpp nekk benn mu nekk ay souvenirs yoo xamante xale yi ku mel ni ñun. Mhm. màggee nañu ak loolu donc da nga doon toog waajur yi ku ci nekk di ñaan nga respecté ko léeg aussi boo xëyee ngay ñaan nañ la defal tusngal ngir boo xëyee le lendemain naan gis naa amaana xale la woon mais léegi sax ouais bu ñuy def tusngal bi ak affaire yooyu noonu d'accord waaw mais nag c'est vraiment en de disparition donc baax na aussi parce que kër yëpp dafa amoon mag kër yi amoon na maam ah ma grand-mère euh, daf may fàttali yu bëri ndey saan tam xarit bu ñëwee effectivement ba ñu tusngalu ndeysaan da nga doon yàkkamte sax fête yooyu kii te doonoon fàttaliku aussi da ngay gis xale yi di njëkkante di lekk tànku xaru tànku xaru ba dañ ko daan weer ca ëtt ba ba tam xarit ñëwaat ñu doog ko ñu doog ko togg je te jure yeelu tabaski yi ci oh wallaahi dinañ ko doon def mu nekk daal ay yëf yoo xamante ne vraiment ça berce ah notre enfance ñaanaale aussi ne ñoom ñun ñooy les futures mamans mhm. ak suñu yaay fi nekk ñoom itamit di ko ñaaxaale seen njaboot ngir ëllëg ñoom itamit bu ñu màggee mun ko nettali seen yeneen i doom waa kay ëllëg nag dina tombeek euh, veillu tam xarit euh, dégg naa ñu mhm. naan woor ko baax na euh, woor jeudi bi baax na woor bisu tam xarit baax na mhm. ci bis bi ci topp itam woor ko defe naa baax na et li ci diine wax ak yenn ci ay mbir yoo xamante ni mën naa jëriñ suba dañ ko waxtaanee ak Mado ñu ngi lay gërëm euh, bu baax 10 euh, heures euh, léegi mu jot fileeg 9 minutes on va tous sortir rejoindre Kaccoor yi ay kàccoor la ñu ah mais ils ont tellement de talent. vous allez vous allez vous voir ñoom ñu ngi tudd Kalabante Kalabante la ñuy retrouver léegi nii bu ko defee ñu am yi ñu indil euh, on va on va un peu mais venez. Ndiaye nag tàmm nga saa yi ñu nga làqatu ci ginnaaw da ngay rus da ngay bañ seen waa kër ne la ba xale jigéen yi ngay ànd ci télé bi <laughs> Alfi viens <laughs> bon attends j'ai oublié ma feuille Kiara ma cousine ah mais venez. venez kaay see daal gën a feeñ bonjour les amis comment allez-vous bonjour alors il est où Ali c'est toi Ali comment vas-tu mais mais mais qu'est-ce que vous faites comme ça le cirque vous faites du cirque oui. depuis combien de temps depuis en 2004 depuis en 2004 vous êtes des Sénégalais ou quoi Tous sont les Guinéens. As tué Guiné... Ils sont tous des Guinéens. Ils sont tous les Guinéens. Tous des Guinéens. Oui. Même les, les là-bas, les là-bas, les courtes femmes là-bas. Oui, hein, c'est des Guinéens. Ouais, c'est des Guinéens. D'accord, d'accord. Alors, paraît-il que vous faites de très bonnes choses. On va, on va, on va vous laisser, euh, on va permettre de nous proposer une prestation tout de okay, suite. Oui, oui. Comme ça, nous, on va suivre. Ouais. Peut-être euh, danser, pourquoi pas. Bien sûr. Hein? Voilà, c'est parti. Okay, ouais. Calab Calabanté qui veut dire Euh, Calabanté, c'est un terme soufou D'accord. qui parle d'une personne, mhm. mais généralement on parle De Saï Ici on dit de 5 ans il a mm -hmm. envie de toucher, il a envie de faire de choses. penser, il veut rentrer dans les choses. Mais il sait pas comment il fait. D'accord. Donc vous, vous êtes des Calabanté, c'est ça Qu'est-ce que vous nous proposez tout de suite Nous, on vous propose la jonglerie, les pyramides, l'acrobatie et beaucoup de trucs. Allez-y. Regardons. Regardons que xale ñun tam dañu daan foo comme nii jumelles c'est ay seex lañu de e Fatima kay seetaan yi du fàtte yow kay seetaan yi <laughs> Guinée la ñu jóge ñëwal ñëwal kay seetaan kay que tu peux faire ça, toi <laughs> Ué! Uau! Uau! lii de mooy toog waxtaan. Allez! Ah wow. Eh, bravo. Bravo. Bravo voilà eh bàyyi leen kay euh, ole on on bravo bravo bravo restez avec nous on va revenir avec vous dans quelques minutes en attendant on vous laisse en compagnie de Mohamed Ndiaye pour la revue de presse puisqu'on n'a plus assez de temps alors Kalabante le groupe bi tudd je vous donnerai toutes les infos concernant ce groupe pour yéen ñi nga xamante ni yéen a euh, euh, pourquoi ils sont là au Sénégal Mahmoud noo gisee <laughs> booy dañoo tax de. Pape ñii ay vrai professionnel booy li ñu mën ñun mënuñu ko de. dañ koo jéem xam nga lii dangay ngay am entraînement. ah oui am maîtrise. ak ak ndig lu baax am endurance. ak ndig lu baax ndig lu baax. ah oui ah oui. juddu woon ci kaw garab. yii nii suuful nañu de. yow mën nga ko. ñu essayer. <laughs> man mii daa sëgal ma xool sëgal. <laughs> sëgal rek léegi ñu laay sëgal sëgal rek. allez c'est parti pour la revue de presse ak Mamadou Mohamed xaaral faaw yàgg day ànd ci bu bi tey. yàgg tamit dafa ñeme yàgg ci non mais <laughs> liggéey non liggéey na ko ba pare de. dañoo nekkoon ci yéeg yee ngeen nekkoon mais pas bi yee baax na de. non ñoom pare ñoom nu mu tudd. ci yeewu leen plus bi. waaw kalabante laaj leen ku leen bëgg a woo fu ñuy kii. loolu laay waxtaan ak ñoom après après après bi. yëg nga ne ñëw na. permanence gis naa ko gis naa ko gis naa <laughs> xam nga nag euh, xam nga nag keps nag tey. waaw bu ñu tëjoon Dakar ñooy bokk yoon wutali Jolof. yow ba da keps kat ñoo bokk suñu ngap. serite yi da nga yàgg yàgg na de. d'accord allez rapidement il est 10 heures 2. Euh, ñu jeexal ak euh, revue de revue de presse bi je mën nañ ci dem directement. Euh, ci ci ci mi ngi mi ngi mi aju mais daanaka. sujet yi nga xam ne gars yi doon nañu ko faram-fàccee. lu ci xam nga ko. bokk na ci police. ak lan encore. police ak ci yeneen ngi noonu mais jeex na jeex na en attendant waxal Pape Samba mu jox ñu l'observateur ñu. doole jox ñu l'observateur Pape Samba ay li fekk yàgg di pare Pape jox ñu l'observateur ñu jéem ko lijjanti. ma gis nga Pape xët mu njëkku yéene kaay bi moom Serigne Modou Kara Mbacké Norey ni borom bax baxa moom la yéenekaay bii nga xamante ne ji moom la observateur xëy dalal bari lu mu waxtaane ak moom bokk na ci moom Modou la ko Modou euh, a yaatu mu di bi nee na nag lu aju ci woote bi nga xam ne sëñ Bass Abdou Khadre ko ñi nga ne ji ñoom ñooy diggante Macky Sall ak Abdoulaye Wade ngir ñu juboowaat jàmmoowaat ngir jàmmi observateur bi laajee lu mu ci xalaat li mu ko wax mooy loolee mooy devoir am loolee moo ko war ñu ne ndax yow noppi nga ngir jàpp ci loolee dox ci wax ci mu ne leen li ma xam ba xam ko daal moo di am na lu may lijjanteeg Macky Sall bu fekkente ne loolee sotti na dinaa kon ànd ci euh, moom euh, ko euh, jëm rek li muy waaj ak Macky Sall loolee leeral ko journaliste observateur yi ñu jógee foofee dem ci beneen di populaire mi xëy ak ñun ci lu aju ci li nga xamante ne ji moom moo xewoon démb ci police école police mu di passation de service ci diggante kii di Anacim mu fay ak ak ki nga xam ne moo di Omar Mal mi ko wutu ci bopp police bu Sénégal yéenekaay bi gis ci règlement de compte boo xam ne dañ ko doon jéem a nëbb maanaam ab defante ci diggante kii di Anna Sémou bi nañu Abdoulaye Daouda Diallo moo doon gaaral Anna ne ji dellusiwaat na ci passation de service euh, doon jox ay leçon euh, kii jiite police bi di ko wax nan la ñu war a jiite police ak management beeg ni nga xam ne noonee la war a doxalee ne grand place de kii ci moom i la mbir moom leneen la gis moom yéen a kaay bi di grand place mu di Anna Sémou Faye mu yëkkati yi kàddu mi ngi nii moom soxna si toog ci xët mu njëkk yéen bi muy xam ne kon euh, li muy sàkku ci police Sénégal yi moom mooy ca ndaje ma Sud Quotidien ñëw ci wooyu le wàll ak leneen loo xam ne gis na ko mu di njiitu réew mi Macky Sall nga xamante ne ji Abdoulaye Daouda Diallo moo xam ne démb lu toll ci junni policier ak juróom ko moom moo ko wax démb ca ndaje ma réew mi quotidien dikkaat ak ñun ci li ñu ne defante maanaam gaaruwaale réew mi quotidien bu am ci diggante Anna Sémou Faye ak Abdoulaye Daouda Diallo yéen kaay bi nañu Abdoulaye Daouda Diallo moo doon gaaral Anna Sémou Faye ndax nee ba euh, c'est l'homme qu'il la place qu'il maanaam Omar Mal mi ñu fal ci boppu police moom moo ko war a jiite yéen kaay bi nag li muy laaj mooy waxam joojee xanaa daf ci bëgg a wax ne ba Sénégal amee indépendance ak léegi 1960 ba léegi ndax euh, maanaam mosuñu am ku jiite police bi koo xamante ne ji dox na ñu dem ci beneen yéenekaay mu di la témoigner mi dikk ñun ci aju ci euh, voilà cour d'appel bu Thiès journal bi nañu jamono ji tas na ndax ki nga xamante ne ji moo ko jiite woon ci lu aju ci mbirum ciment du Sahel ak patron ba muy waa Layus nee nañu daal loolee tax na kon ñu daal ko fay jëlee nan la demee dëgg-dëgg Pape yéenekaay nga xamante ne ji moo di la témoigner dellusiwaat na ci gën koo gën koo yaatal Pape <laughs> waaw. xool eh bàyyi ko mu def revue de presse te dem dañu génn studio bi sax tey ah ilaha illallah. mais Pape lu xew. oui ku def lii. lu xew. xool voilà d'accord sutura quoi tonton ak ñeneen sutura vas-y continue avec la revue de presse. d'accord dafa jeex. waa kay ay ay jokkoon baax na. sottoo te bàyyi képp suñu permanence kaay leen jóg leen kay lii xet jóg leen gaaw jóg leen kaay leen gaaw kaay leen ñu daw gaaw. kaay leen ñu daaw ba non dafa am lu xeeñ fii dafa am lu fi xeeñ yow gidd gaaw balaa xet gidd la rey